salawaatuhu wa salaamuhu ala man adhasha bi jamaalihi quluuban wa afhama bi jalaalihi afwaaha wa xaada min almafaaqiri adnaaha wa alaaha wa sumiya inda allahi bi muhammadin wa yaasin wa taaha wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaari alcadiim amma baadu ayyuha almushaahiduuna alkiraam fi télévision Sunu Label TV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 julli sëlmal ci sangu àdduna ak laaxira sijdil wujudi sallallahu alayhi nuyu leen ndokkeel leen ziyaar leen jiital ci nuyoo beeg ziyaar yi kilifa diini yi mu rogalaat ci wéyjur yi nga xam ni ñoo ñu bokk njaboote ñaanal bu baax soppe yeeg xarit yi sàkku ci ñoom ñaar ci barke weer wu tedd wi yal na yàlla bokk na fajal aajo yi bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam barki guddi gu tedd gi nga xam ni tabar fakallah moo tàbbi ci biir weer wu tedd wi muy leylatu nisf shooban muy guddi quinzième jour tabar fakallah su ma juumul incha allahu rabbi suba lay doon ca talaata ji yu ñuy wax yépp tabar fakallah dana am doole suba nit def ko te mooy koor yeeg naafila yi ñu joxe woon yépp rekk dana am doole lool nag suba ak nag salaatu tasbix tamit ne nañ suba ku ko mën def ko parce que julli yu am doole lañu looy mën nag ci ñaan yàlla aajoom suba ci guddi na ko boole ci ay yitteem mbokk yi maa ngi ñaan sama boroom yal na yàlla bokk na fajal sunuy aajo sunu label yal na yàlla yëkkatiku nuyu bu baax sunu directeur ñaanal ko yàlla yàlla taxawu ko biir ak biti xanaa rek euh, ziyaara alaaji Idrissa Diop mu yóbbaaleel ma borom xam-xam yi géew nuyu bu baax euh, sama jigéen ñooñu ca som macha allahu rabbi te ci njiital Marème Cissé nga xam ni mooy coordinatrice ba yor lépp lu jëm ca wàllu seen bis bi ñuy waajal muy takkusaanu sayyiduna muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam di ko defee foofu ca som animation ba Habib Sarr la waaye conférencier bu Oustaz Taha Diop moo koy ànd ak yéen ci rek euh, fii dend ak euh, saada si ca som ñu ngi ca invité ñëpp ca Ceeskaay incha allahu rabbi ñu cay rendre hommage suñu jigéen Mami Sarr bokkoon ci le nga xamante ni soppe waa kër Cheikhu Tidiane yi cent pour cent yëpp xam nañ ko waaye mu wëlbatikuwaat melaat ca gox ba melokaan waa am solo waa som yëpp ñu ngi ànd incha allahu rabbi la onze ca takkusaan ba ñaanal ko ca waaye bokk bëgg Seydina Muhammad Habib Sarr mooy def euh, animation ba waaye waxtaan wa maa ngi cee invité ñëpp maa leen koy ànd ak yéen waxtaanal leen suñu diine waaye waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moussa ñu del siwaat ci weer wu tedd bi waaye guddi gu mag gi nga xam ne tabaarkalla nag li wolof naan eh, lu ñu doon xaar rek yegsi na muy nis fa soxbaan yegsi na nag mbokk yi kenn ku ci nekk xamal ni ngeen liñ ci wax yépp lu ñu mën suba ñu jaayante ko ma nuyu sama rak Boubacar Diop moom it ca R100 incha allahu rabbi sunu bis boobu ñoo ngi koy waajal moom it mu war a doon le 18 mars takkusaan boobu nga xam ne at mu ne macha allahu rabbi mu taxawu ko ànd kooku famille ba ànd kook woy jur ya ànd kooku waa R100 ànd kooku waa muxtafiina ànd kooku waa axbaab waaye ànd kooku soppeem yépp nag Boubacar maa ngi lay nuyu di la ziar di la wax ne bis bi incha allah ñun ñëpp ñoo ngi koy bàyyi xel ndax sunu bis la yal na yàlla yegg lañu ci jàmm mbokk yi le 18 lay doon danaa leen ko fàttaliwaat incha allahu rabbi ci émission yi ñëw waaye guddi gi ngi nunu Moussa guddi ko am doole man ahya na may wax na may wax de yonent bay wax nee na man ahya laylat al iid wa laylat nisfu min shooban lam yamut qalbuhu yowma yamutu al qulub nee na ko yàlla dimbali ba mu am cawar tey taxaw guddi guddi yi nga xam mooy guddi tam guddi tëbëski ak guddi korite nga jaamu ca yàlla mais nag ñetteelu guddi gi mooy ban guddi nisfu soobaan bi bi ñu jub Moussa suba nee na guddi googu ku ca góorgóorlu ba jaamu ca yàlla ñetti guddi yi nee na yow bis bu xol yi def dee nga xam ne xol yi dañuy dem ba dootuñu soxla dara ci yàlla mu ne buñ ca yeggee ñu ne mu ne yow dalalal sa xel yow sa xol du dee sa xol doy dund ci wàllu yàlla mu ne loolu nag lana la koy may mooy fexe ba guddi suba gi bañ laa rëcc nee na jibril guddi suba gi ci la wàcce woon ci sayduna muhammad ne ko yaa muhammad ijtahid fi hazihi laylatu jugal ci guddi gi nga farlu ca fa inna fiha tuqdal xaajat ne ko xanaa xamoo ne yàlla ci guddi gii lay faje aajo yi yonent bay nettal ne na jibril ci guddi gii la ñëwoon ne ma muhammad ma ne ko labbayk mu ne ma jugal guddi gii de moom loo mën ci farlu farlu ca mel ni jibril bi mu waxee loolu nabi da ko ne waaw lu xew mu ne ko guddi gii ci la yàllay faje aajo yi ci la yàllay faje aajo yi ne na fajtahada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam qaa'iman fa ataahu saaniyan nee na yonent bi dañ ñokket sànni malaanam yee salaan njàppam fa séene fanaane guddi gi ci ñaan nee na jibril di kalaat ko ne ko yaa muhammad mu ne ko labbayk mu ne ko abashir ummataka bégalal sa xeet ci guddi gi mu ne fa inna allah taxaara xafara li jamii ummatika man laa yushrik billahi shay'an mu ne ko bégalal sa xeet léegi léegi laa demoon mais yàlla ma yónni waat ne ma naa ñëw wax la ni sa xeet nañu bekk nañu bég mu ne ko waa jibi lu ñuy bég mu ne ko nee leen ci guddi tey gii la yàlla jaar jéggal na mboolem koo xamante ni nanguloon na la yow rasulullahi waaye fekk daawul bokkaale yàlla ne leen nangul naa ko nee ko mbooleem koo xamante ni mas na topp sa ginnaaw yow rasulullahi te bokkaalewul yàlla guddi tey gii ne ko jéggal naa ko lu mu defoon mbokk yi kon luñ ciy jàpp Moussa benn rek mooy bu danger mooy ku yàlla fekk ngay bokkaale yàlla mbokk yi lu ñu gën a mën ci teet bokkaale yàlla nanu ko teet lu ñu gën a mën a maytu bokkaale yàlla nanu ko maytu parce que guddi gu màgg gisu yàlla ni damay jéggali ñépp ba mu des koo xam ni day bokkaale yàlla azara allahu taala yàlla feeñal na guddi gi li anna laylata alqadaai wa xukmi fiihi yëgoo leen ni Moussa guddi gi ci la yàllay dogalee dogal yenn yi balaa ñuy yegg ci guddi laylatul xadri waaye guddi gi ci la yàllay atte yenn atte yi balaa ñuy yegg ci guddi laylatul xadri moo tax yàlla musaa feeñal na ñeenti guddi nëbb benn guddi <laughs> waaw feeñal na ñeenti guddi yoo xam ni ci la yàlla def teraanga yu rëy waaye nëbb benn guddi yàlla feeñal na guddi laylatu nisfu soobaan quinzième jour ci weer wi muy suba yàlla da koo feeñal wane ci taraanga yi ci nekk yàlla feeñal na guddi korite wane la ca nekk ci ay yiw feeñal na guddi tabaski wane la ca nekk ci ay yiw waaye feeñal na sax guddi arafa Moussa ñeenti guddi guddi gënu leen a màgg waaye nag wa aqfa laylata alqadri li annaha laylata alrahmati wala itqi min anniiraan fa axfaha li ala yatakalu nee na yàlla nëbb nag wenn guddi Moussa muy guddi laylatul xadri mu nëbb ko lu tax mu ne parce que muy guddi yërmande gi xam nga Moussa guddee da ciy dogal di ci jéggale mais guddi yërmande <laughs> ah Moussa dogal ak njéggale yëpp am na bu leen ëpp doole danga naa ma yërmande yàlla nag moo tax mu nëbb guddi yërmande gi ngir lan guddi googu nee na ci lay goreel ñëpp ca safara ba kenn du fa dem muy guddi laylatul xadri ñu ne ko ah mu ne moo tax ma nëbb ko pour gaa yi sonn ci weer wi weer wi ñu jub pour mën cee góorgóorlu mboolem guddi yi moo tax axfa allahu axfa laylatal qadri xatta yatayri fi chahri kulli nee na dafa dafa nëbb laylatul xadri ngir ñu farlu ci weer wi yëpp muy benn guddi Moussa am na beneen guddi am na beneen heure bu mu nëbb wa saata ijabati fi yawmil jumaa bisu aljuma yi heure ban la yàllay d'accord ñaan yi dafa am benn heure Moussa ci aljuma lu fa waay wax yàlla yàlla def ko mais da koo nëbb ah kenn xamu ko ngir lan mu ne dafa bëgg nee na ñu farlu ci aljuma ji yëpp ci bëccëg gi yëpp wa axfa ismuhu al aadami fi asmail xusna xata tad'u am na troisième lu mu moom yàlla mooy lan mooy asmaullahi al turu yàlla wu mag wi mooy ismullahi al bi ñuy wax yàlla da koo nëbb ngir lan dana ci biir turam yi ngir bëgg ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy topp di ko ñaan ci mboolem tur yi wa axfa waliyun hatta la taxtaqira ahadan min al muminin quatrième bi nag mooy dafa nëbb nitu yàlla yi ci biir mbindeef yi ngir Moussa ngir ñu bañ a xeeb kenn ku waay gis kon ñeenti yàlla nëbb leen lu ci ne dafa am lu ci namm moo tax mu nëbb ko nëbb gi mu nëbb guddi leelatul xadri nee na weeru koor laa bëgg nit ñi farlu ca waaye nëbb gi mu nëbb heure ijaaba gi ci bisub aljuma nee na aljuma laa bëgg ñu bàyyi ko xel waaye it nëbb gi mu nëbb eh, nitu yàlla nëbb gi mu ko nëbb ci biir ci biir jaam ñi nee dama bëgg fonk jaam yëpp jaamam yëpp laa bëgg nga fonk waaye nëbb gi mu nëbbit turam wu mag woow nga xamante ni dañu wax ni Moussa ko ko xam waxuma sa yaram araam na safara mais loo waxati yàlla mu def turam woowu noonu mu ko nëbbee ci biir turam yu tedd yi moom yàlla ne dama bëgg nga fonk sama tur yëpp kon ci dégg mbokk yi yàlla am na yu muy nëbb pour bëgg ñu fonk li mu nëbb ci biir ñi mu ko nëbb moo tax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne axfa allahu salaasan fi salaasin yàlla day nëbb léeg-léeg ñett ci biir ñett ridaahu fi taatihi fala taxtaqiranna min taatihi shay'an nee na mbégteem da koy nëbb ci lan nga koy topp ba mu béegi ko lan nga koy topp ba mu béegi ko da koy nëbb maanaam ci ban topp yàlla la yàlla gën a bég da koy nëbb day bëgg rek nga bañ a doye dal benn topp yàlla toppal yàlla ci mbooleem lu mu la sant nee na ñaare bi mooy wax adabuhu fi masiyati yi day nëbb ban bàkkaar ngay def mu mer da koy nëbb waaw xam nga musa bu yàlla leeraloon ne bu ñu ko defee ne nangam rek mu kontaan suñ ko defalee bii bàkkaar rek ci lay mer bu ko leeraloon benn bàkkaar kon gaa yi dañuy bàyyi yeneen yi dañuy bàyyi boobu nekk ci yeneen yi waaye kazalika boo xamoon nit buñ ko defee lenn lii rek lay bëgg ko defar rek yeneen yi boo ko deful sa garaw kon xoolal dañuy bàyyi yëpp def boobu rek loo tax mu nëbb lépp nag nëbb na la na koy kontaan loo ci jaamu yàlla waaye nëbb na la na koy merloo ci topp yàlla ci ci mooy yàlla waaye wa axfa waliyu fi xalqihi falaa taqiran falaa taxtaqiranna minhum ahadan Moussa loo tax yàlla nëbb e, nitu yàlla ci biir jaam ñi pour bëgg rek ku ñu gis ñu xormaal ko ku ñu gis ñu fonk ko ku gis bàyyi ko xel parce que kenn xamu kan moo am cër wëcc kanamu yàlla mbokk yu guddi gaa ngi noonu maa ngi ñaan sama boroom li guddi gi ëmb ci yiw ëmb ko ci taraanga ëmb ko ci barke yal na la bokk nu ko defal mën ak yéen bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi maa ngi teg baaraam ñaan sunu borom guddik suba gi yal na yàlla defal ñu ko fekke bu nu ko fekkee yal na yàlla setal ñu ba nu set bu nu setee yal na yàlla sololaat ñu yëre yu bees tàq te mooy yëre leeram yi bu nu solee la yëre leer yi yal na nuy nàmp ci leeru yonent bi ba keroog ñuy jot weer wu tedd wu màgg wii nga xam ni ñun ñépp sunu xel ak sunu xol dëkk mën nañ ko mu jëm ci mbokk yi maa ngi teg baaraam suba maag yéen bu ñu dajee ñu waxtaane nag ana nan la nit di génnee ci soobaan tàbbi ji ci weer wu tedd wi ana nan nga koy waajalee man ak yéen incha allahu rabbi ginnaaw bu ñu jógee ci quinzième jour bi ñu dem waajali sunu weer wu tedd bi daanu ko ànd suba insha allahu rabbi iza aradtum salamata al ardi fattabi'u muhammadan wa ali hayatul umami mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa man adallu mimman yad'u min